sëñaas li nga wax léegi dafay firi ne gént dafa am ay sew-sew yu ci biir bëñ boo ko géntee di ko lekkee ndawal boo bu bëñ bi waddee yow la Lamine bëñ ci gént waaw danger bu ci am dafa doy waar parce que bëñ rek bëñ waddee ci gént waaw ala kuli aalin bu sarax amul moom dese day am ci sa famille bëñ bëñ bu wadd bëñ bu ci gën a gaaw nag mooy mooy bëñ bi nga jël mu wadd nga yëy ko boo ko yëyee wala sa bëñ ñëpp jaare ndoor wadd ndoor ah boobu nag moom danger la moom. la ilaha illallah gént moom ala kulli alim moom da ngay ñibbi xaybu. benn ngi noonu bëñ. wadd wala bëñ ànd ak deret kookoo gën a danger tamit. parce que dafa euh, Lamine. waaw. Euh, ñaari mbir dana feeñ ci gént. ci gént mooy firi benn firi. tey euh, nit. man na mën na jël yàpp dagañ ko di lekk. bëñ bi waddaale ci. waaw. keneen feeñ ci gént gi ñoom ñaan ñëpp war a ñibbi àllaaxira loolu am na ci gént benn ñaar nit dana tiim yàpp di ko lekk ci bëñam waaw fekk moom mooy yor feebaru biir yaramam boo xam ne du wër mukk parce que yàpp bi boo ko jëlee ko ci fam nekk bu amee deret nga jël ko yéey ko noonu te toggoo ko waaw boobu kooku dafa am li muy firi firi gént dafa am parce gis